dimanche prochain ngéwël ah ak kaaneen ah ngéwël ak kaaneen dimanche prochain ah date bi ban la dimanche prochain ban date la bii ñëw bi stop 26. ANC. ANC. ak Kawsara. yéen a may dégg. deuxième heure. kër gu mag. ak coxolaan. la ilaha illallah allahu akbar géej gi coxolaan. ngeen war suulu. sulleeku di dugal ay bii lii du mbayeen deux mbayeen deux ak ZDB ah lii rek laa doon wut si àdduna mbayeen deux ZDB barki yaa Rasulullaay mooy mat mais maa ngi fàttaliku maa ngi leen wax leen ni li mbayeen deux ak ZDB Cambérène deux la ñuy footballé ah kii kan la. kër gu mag ak coxalaan Cambérène 2 la ñu fubale. ndéwal gi ak kaaneen Cambérène 1 la fubale fii ak ANC ak euh, Kawsara ANC ak Kawsara dañ koy changer ak euh, euh, kii nu mu tëddee équipe bi mujj bi Mayenne 2. ak euh, ZDB ANC dafay dafay des Cambérène 2 yéen ngeen ñëw Cambérène 1 ok c'est bon ah. hmm? que li ko war a mooy ah, Cambérène Cam Cambérène 2 ñoom ñu mën a toog foofu organiser ñu suñu tournoi foofu Diamaguène Kayor dañuy des fii Cam Cambérène waaw PD PDK ak Arlène dañuy dem Cambérène 2 kii ak Solem dañuy ñëw Cambérène 1 Déggo ak Labarassa dañuy dem Cambérène kan laa wax léegi yow fan laa la wax Solem Cambérène 1 yow da dem Cambérène léegi leer na ah leer na si gars yi bon bëgguma ñu dugg ci groupe bi ku nekk naan fan lañ ban ban daan lañu boole ak kan lañ dajal bind nga yow waaw. Cambérène ban terrain mooy terrain ana booy bi sax booy bi mi ngi booy bi anam kii waaw mooy terrain Thiamène waaw waaw. bon dañ ni woon Diamaguène ak kaw ak Kayor ñooy football première heure trois heures et demie la match bi démarré trois heures la leen convoqué parce que dañ bëgg a jël benn terrain ñu football leen doo fa match yëpp Diamaguène ak Kayor ñu dimbali ñu ci loolu waaye dégg trois heures waaw mooy premier dimanche bi le 19. waaw zal moo koy organisé match boobu <laughs> yaa ngi dégg li may wax tey ngi nii ah mooy te terrain bi nekk bi bi nekk ci booru terrain jamono boo rombee terrain jamono tuuti mooy terrain bi si gën a yaatu parce que dañuy ragal comme géej gi day changé mu mu nangu terrain yi mais bu fekkee ni géej gi yaatu na man am mën nañ football terrain Kayoor hmm? mën nañ am ñaari terrain ñii dañuy football fii ñuy football fële waaw gars yi mbir maa ngi noonu bu fekkente ni dafa am ñu ko fan la liggéey